Serigne murtadakebe, Presiden président directeur général Nasrul Mouminine garap ak gantax di yang ci lepp lu jëm ci walum fajj ak taxawu nit ci ay aajom ba borom bi defal ko ci ndimbal mo xam nga soxla karange wala ay muslaayu cat bët wala lamine wala sax nga soxla jaaro buy dox ci walum karange bayre ubeku, khalis koppar gu bari lol ba ci yaram buy teju wala ci yatine waye tamit gor gu new katan ba jaxli ci sa bop lol ñoo ca gaaw yamul foofu de nasrul muminina garab ak gàncax moo mën ci hémorroïde ndoxum siti wala jigéen ju mënul am doom ak mbooleem xeetu jàngoro yooyu bu fekkee danga am jafe-jafe ci sa bopp wala sa wàllum liggéey wala ci say mbir kaay ma dénk la ba ci sax ñaar ñu bëggante gaawal jokkoo ak ñun ci 78 445 04 79 tek ci nag bu fekke da nga bëgg xam sa tabiya sa gratuitement lañ la koy nasrul muminin dimbalal julit Abonnez-vous sur Scène Production pour ne pas manquer des histoires et films très intéressants. Scène Production Islam Sakanam ndeysaan dawoon na yaram loolu ci nopp Fodé ak képp koo xam ne membre la ci seen famille bi ñu yëgee desee soxna su baax soosu nekkoon jabaru seex di magu Fodé soxna si nga xamee ne dafa yaatu yaatal Fodé boroom këram soxnaam dafa génn àdduna mu nekk ku tumuraanke yor ñaari doom dëkk ak frère boo xam ne am na soxna am benn doom frère bi lu muy baax baax baax soxna si so su bonoon wala mu ñaaw ko kon Fodé dëkkinam ak frère boobu mën naa xat mën na dem ba soxna si jaxase ko ak frère boobu ba tàqale leen ñoom ñaar su ko defee Fodé di jéem a demal boppam di jéem a moom ak njabootam ñuy tumuranke waaye soxna soo soosu defut loolu dafa obligé uuf Fodé comme ni mu uufee borom këram Cheikh yaatal ko ba noppi uuf ak njabootu fóode comme ni mu uufee doomam El loolu taxoon na. ak woyam rafetoon lool ci ay kilifaam mu bàyyi fi woy wu rafet ginnaaw bu mu génnee àdduna Fodé waxtaan ak soxna soosu mu nekkaloon mu doon nekk servantam maanaam jànqam bu ko doon liggéeyal mooy ki nga xam ne mooy Véronique mu wax ko ne ko dama am décès boo xam ne day bu métti la ndax soxna soo xam ne sama frère boo xam ne ñoo bokk ndey ak baay muy sama mag mooy boroom këram ta soxna soosu bi sama soxna génnee aduna moom moo ma jàppale man ak sama njabot Véronique ne ko Massa kon yow sa soxna dafa génn aduna mu ne ko waaw mu ne ko ah ndeysaan kon amoon soxna mu ne ko déedéet aw ma soxna gisoo dira ma ne ci kër gi soo amoon soxna kay dama ko indi teg ko sama wet xam nga ne aw ma soxna nag foofa ma ngay wut occasion ci ndaw si ndax xelam tàmbali naa nekk ci ndaw si waaye nag sarax si dëj boobu taxoon na mënul woon wax dara wala mu def dara mu ne ko léegi bàyyi la appartement be keur gi dina wo kilife yi nga xamé ni ñoo fi andi wax leen li xew su ko defé ñoom dina mën mëna may ma dem Kaolack xamna dina fa def dir da bëgg na fa tok ba ñaanal soxna si ba lepp daldi di dal non la waje bagasam andak aja, aja mom ba mu yegge xabar bi joy na ci keur ga joy metti ba Fodé ak Véronique momu ñoo mujj di defal ndaysane jox ko ndox mu naan ajaa yoon bi yëpp daf koo jooy ba ñu ñëwee ci kër gi itam fekk nañ dëkkandoo yaa ngi fees dell ci kër gi jooy yi ak yuuxu yi ak seede yu rafet yi ci ndaw si bi mu génnee àdduna doom ji nga xam ne mooy Elage moom dafa daanu xëm ndax Elage dafa bëggoon yaay ji takkoon yaay ji loolu ndeysaan tax na ñëpp yërëmoon nañ ko waaye Cheikh itam di boroom këram boo ko gisee danga koy yërëm ndax dafa mel ni ko àdduna soof léegi daanaka bi bi amee. lekkatul naanatul defatul dara ndax jaaxle ak jommi ndax yëf yi da koo jëlee kaw lool ndax soxna soo xamee ne moo yoroon sa lépp nekk soxna su jàmbaare ku la muñal amoo loo ko fayee waaye seere na ca moom seere yu rafet mu waxtu wiñ koy jëbal boroomam ca armeel yi ci kanamu mboole mbokk yi ak kilifa yi waaye mbir mu xorom itam amoon na fa mooy mboolem seen doom baay yooyu nga xam ne dañoo nekkoon bitim réew seeni soxna ak seeni doom ak njaboot gi ñëpp ñëw nañ ñoo xam ne mën nga toog fukki at wala juróom-ñaari at doo leen teg bët lu mel noonu rek moo leen àndi nga xam ne ñoom bu ñu ñëwee sax seen doom yi dañuy ñëw di laajte tur yi foo turu turu xale yi ñoom ajaak ñoom Cheikh xamantewuñu seen biir ndax duñ demlante duñ dëkklante waaye bu dëj xewee moom ñëppay ñëw nit ki lu sori sori ci mbokk lu mu téetee boppam di gis mu ñëw ndax day lo xamne nak mom bo ca rek dana ñaaw ci mbokk gi te sa derit mën na yaq ci niñu ko tam di gisee ci ara gi nonu la fa mbiri deme won ci nonu itam ay nit ñu bari ñewal nañ fóode ci turu maire bobu nga xamne moy maire bobu sëtam bi réeroon te fóode feñal ko mum ñewon na andak doomu bu jigen bobu andak itam lu bari ci wa koñ bi ak yenn ci mbolo ñoo xamne ay responsable lañ ci dëkk ba ñëw jaale si ki nga xam ne muy fóode ci turu magam maam jaale si magam ji ci turu Fodé ndax ñoom Fodé seen wëllëre la ndax defal na leen teraanga waaye ba ñëwee Fodé di waxtaan ak moom maire bi ne ko ana sunu waaja nag xale bi mbaa léegi amatul benn jafe-jafe maire bi ne ko alhamdulilah xale bi day barki démb rek la mu tari alxuraan tari moo xam ne mu ama am solo la jéem naa sax woo la waaye après lañ wax ne ma yaa ngi dakaar ci sa gaa yooyu moo tax ma ne naa bàyyi noonu xam naa du am jot waaye ñaanal ko ndax tari na ba mokkal na léegi xam naa ne dinañ ko waajal bu jàngee tuuti ci xam-xam li mu war a xam ak itam mu bind kaamil dinaa fexe ñu dugal ko ci école yi ndax moom xel mu neex la yor waaye lépp ginnaaw yàlla yow laa koy sante ndax sànq woon na ba ñun jaxle woon na ci jaxle woon nañ ci lool noonu foo di leen li ngeen wax dëgg la yàlla dem mooy buuta mooy dogal moo dogal seen dimbali ko jaarale ko ci man waaye nag xale bi na ngeen ko gën a jàppale bu ngeen ko jàppalee incha allah rabbi du ngeen ko réccu lépp lu ngeen def ci moom ci lu baax di ngeen gis résultat bi incha allah yàlla baax na noonu Fodé daal di tàggatoo ak ñoom noonu itam Fodé toog des ci wetu Cheikh di ko jàppale di ko dëfal moom ak soxna soosu nga xam ni mooy soxna soosu di rakku jabaru Fodé bi gaañu woon. dañ bëggoon ko may Fodé Fodé bañ soxna soosu nag la Fodé daal di xalaat ne est-ce que duñu ko may Cheikh comme Cheikh soxnaam gaañu na waaye loolu teel na comme soxnaam bi mu gaañoo yàggul nañ bàyyi ba ca kanam waaye loolu nekkoon na mëbétam fekkoon na itam ndeysaan li li ñuy wax rek soxna soosu itam nekkoon na ci xelu Cheikh ndax jigéen su matee dem kër nekk jigéen ne saroon di jëflante yow jëflante bu rafet bu yàggee cofeel mën na dugg. nekkin wu rafet bi mu nekkee woon kër Cheikh ak jabaram boobu génn àdduna ni mu ko doon jàppalee diiraa feebar bi soxna si moo ko doon defal lépp loolu defoon na jeexital ci ki nga xam ne mooy Cheikh ba Cheikh itam doon na bëgg bu loolu yëpp jàllee ñu may ko soxna soosu mu nekk li nga xam ne mooy boroom këram maanaam mooy nekk soxnaam maanaam ñu may ko soxna soosu moom Cheikh mu nekk boroom këram. waaye foo Fodé am na lu ko jaaxal trop ci mbirum Véronique moomu. ndax véronique saa boo xamee ne Fodé toog na wét deful dara xelam day nekk ci véronique diraa muy nekk ci sarax si diraa muy nekk kawlak bu tëddee néegam sax guddi war a nelaw xelam day nekk ci soxna soosu mu bëgg ko lool am ci moom cofeel lool daal di am yéene nag su demee dina waxtaan ak moom ba xam am na borom kër ngir su ko mënee mu takk ko ndax soxna daal nekk na koo xam seytaanem la dépp mu ko gisee daal ba léegi amul sagoom ndeysaan noonu lay nekkee woon ca kër ga El jàngam yàqu na nangatu lekk nangatula naan di jooy rek di tëdd di feebar ak a jug papaam ak rakku papaam Fodé ñoom ñaar ñëpp ña nga ca wetam di ko jàppale di ko yëkkati di waxtaan ak moom di ko defal di ko delloosi di naxanteeg moom. mu xam ne ñàkk na way jur waaye ñoom itam ñoom ñi ay baayam teel nañoo ñàkk seen way jur loolu yëpp ñu xamal ko ko di waxtaan ak moom ba xel mi dellu si mu continué waat di jàng di ànd ak ay moroomam Fodé toog na fa presque quarante jours yu tegal maanaam ñeent fukki fan yoo xam ne xaar na ba ñeent fukki guddi yi jàll ba ñaanal ko ba ñaan gi ruus maanaam ñaan gi nga xam ne daal moom la ñu ñaan soxna si fàtte nañ ko léegi ña nga ca leneen. mu door a delluwaat ndakaaru moom ak Adja waaye foofu itam ba mu delloo fekk na fa ay liggéey yoo xam ne kilifa yi sant nañ ko ngir mu liggéey ñu liggéeyal ko ko ñu dolli ko ci fayaat ko ci xaalis bu takkoo takkoo takkoo takku sax xaalis bu takku Fodé dafa mujj obligé ne day toxu fi mu dëkk yoof comme immeuble dañ ko luyee rek te gouvernement bi ñoo koy fay te léegi am na xaalis mu jéema wut pàkk fa nga xam ne mooy Kër Massar noonu la daal di waxtaan ak soxna soosu nga xam ne mooy Véronique ca xalaat boobu Véronique ne ko amul benn jafe-jafe man dañ maa indi pour ma lay jàppale rek dangaa baax ouvert nekk sama frère jàppe ma kom jàppee ma comme sœur boo bokkal ndey ak baay moo tax looy def nga waxtaan ci ak man waaye jaru ko woon ndax man moom dañ maa boole ak yow boo demoon ci àll ba sax ne ma nañ dem ma ànd ak yow ndax damay liggéey ñu may fay weer ma ciy dimbale samay mbokk samay waa kër Fodé daal di laaj Véronique ne ko waaw ndax yow am nga boroom kër Véronique ne ko déedéet Fodé ne ko ah yow ni nga mel nii lan moo tax amoo borom kër mu ne ko ah am na ku ñu ma takkaloon sagar ci samay mbokk koo xam ne ñun sunu famille sunu askan maanaam dañoo fonk wàllu takk sagar waaye kooku nag dafa demoon ca gaal ya bokk ci ñi nga xam ne dañoo dem ci gaal ya daal di fay des boobu ak léegi nag wax dëgg yàlla nanguwuma jël wax ak benn góor ci wàllu mbëggeel ak yu mel tegul daal maa ngi dund sama dundu, am na nag ñu may bëgg ñuy bëggante ak man des fois ma nangul leen waaye sañ demee ba ci biir su ma arrangé ma continuer su ma wu ma bàyyi waaye l'essentiel daal damay liggéey man di daan sama doole noonu mu ne ko waaw lan moo la boole ci nga am capacité mën liggéey ci présidentiel bi mu ne ko li tax man ma faa man faa liggéey mooy dama jàng ba am diplôme aussi tamit dafa am sama copain boo xam ne daf leen a jege moom moo ma wutal liggéey foofu Fodé laaj ko ndax sa copain boobu yéen ngi nekk ba léegi wala nekkatoo leen noonu Véronique xamal ko ne ko kooku ñoo ngi nekk kilifa la ci ñoom waaye nag kooku moom parewul pour takk ma moom dafa bëgg di nekk ak man rek waaye bëggumaa takk Fodé nag loolu jaaxal ko waaye li ko jaaxal lépp rek mu gëmm ay bëtam rek. dal ni ah man dal soxna si cofeel gi ma am ci mom ak mbeugel gi ma am ci mom dal duma ma ma dal ne ko waaw legi man suma la bëggoon a nak ngir nga nek sama soxna nonu Véronique dal di re ne ko man nak naka jek xamone na ne sa xel mo ngi ci man ni nga comporto rek la ko xame waye man itam nga xamne bu sax sa xel bu nekké ci man man itam sama xel a ngi ci yow muniko ah bon muniko waaw wax deug yalla day dëgg la maa ngi lay liggéey liggéey rek lañ séq waaye daal soo foo ma te boo demandé woon ngir ma nekk sa soxna damay nangu noonu la ko Véronique tontu foo de kontaan lool nag ne ko waaye est-ce que nangu nga tuub nekk musulman ndax yow dafa mel ni chrétien nga ndax loolu laa gis sax ci sa doxalin ci biir kër gi mu ne ko waaw chrétien la maa ngi dëkk côté mbuur dëkk sàng bu nekk ci wetu mbuur suñ famille nag ñaari xaaj lañ j'ai am parti boo xam ne dañoo tuub nekk ay jullit am ñoo xam ne ñoom dañoo des di nekk chrétien ba léegi man nag samay waajur ay chrétien lañ ba léegi catholique laa dama des di nekk catholique ba léegi waaye nag yaakaar naa samay waajur ñoom amuñu problème boobu ndax bàyyi nañoo ma libre ci sama bopp tey sama bëggoon sëy musulman yaakaar naa duñ ko bañ xëy na du leen neex ma sëy sama mbokk chrétien moo leen gënal mais nag pas forcément ñu may bañ a may musulman su ma gisee ku ma bëgg daal moom te caaxaanuma dinañ ma ko may foori am xel mu dal ne ko waaw léegi tuub gi nag loo ci wax mu ne ko tuub gi moom mën naa ko def mais du nekk léegi xëy na léegi dem ba ci kanam su ma sëy ak ba gis na sëy bi arrangé na ma xëy na li ma ci séntu yëpp maa ngi koy gis su boobaa man na maa tuub nekk musulman mais pas forcement du ma ko def te fekk jëlaguma décision bi foo dina ko loolu sax garaawul ndax man sama diina may na ma ma takk la te tuuboo li mu bañ lenn képp la. mooy ku góor maanaam ku jigéen dem sëy ak catholique bu góor waaw catholique bu jigéen mën na sëy ak chrétien mën na sëy ak musulman bu góor loolu amul benn jafe-jafe léegi dinaa ci waxtaan ak sama frère ak lenn samay mbokk incha allah su ma noppee dinaa ci dox ba ma fexe takk la mu ne ko terrain bi nag jënd naa ko Kër Massar xam naa ne dinaa tàmbali liggéey incha allah lu yàggatul ma tabax fa kër. bu ko defee sax sama beneen doom bu góor bi naa ko jëli ji mu ñëw jege si ak seen yaay dañu nekkal mu ne ko ah yaay comme ñoom dañoo am seen yaay mu ne ko waaw seen rakku yaay moo ne ci kër ga moo yor xale yi moom Dakar gi la nekkoon waaye mën naa ko jëli yóbbu ko Kaolack Véronique ne ah lu tax takkoo kooku nag wala kooku am na boroom kër mu ne ko kooku amul borom kër waaye bëgguma ko pour soxna bañuma ko mais nekkul koo xam ne dama koo xemmem ngir sëy ak moom ci wàllu soxna loolu ne dafay nekk loo xam ne danga koy bëgg wéral ni ko wax nga deug de loolu de mom vraiment loy bëgg la dor ko mën def mais soko ko bëggul ko def kenn dala ko forcer non ñu way ñom ñaar di mi nante lol nak ba ajaa sax fiiroon na ci seen diggante ndax do na gis complice bi nek ci diggante foré ak Véronique mom lol neexul won ajaa ba tax na aja sax mujj na di rombu Véronique diko ko cipatu di nuyu xaw ko mere dal ndax bu sañon papam du nek kenn kudul rakku yaayam boobu waaye nag pàppa ji Fodé bi mu xamee loolu dafa woo doomam ajaa waxtaan ak moom ne nag damaa bëgg nga xam leen ne yow sama xarit nga te mosuñoo am benn jafe-jafe sa yaay ni mu nekkee woon sama xarit laata muy génn àdduna yow it noonu nga mel sama waay nga lool ndaw sii nag ne ci kër gi xam naa gis nga sama digganteeg moom waaye dama lay wax pour mu leer ma teel laa prévenir wax la dama ko bëgg a takk Adja na ko takk papa mu ne ko ah yow kii di christian kii di julit di xamoo loolu mu ne ko xam naa loolu waaye dina may na ma takk ko te itam bu doon sama sago doo ci am benn jafe-jafe wala lenn looy deng-deng li ma bëgg rek dañ ci ànd ak man ajaa nag daal di xool lu neex papa ci ne waa baax na amul benn jafe-jafe man moom yow sama way jur nga loo wax rek man dama ci ànd ak yow c'est que kii dama doon bañ rek nga dugg ci moom parce que nit façon nit yi dañoo xaw a doy waar danaka do xam seen jikko à 100 ñum aduna rek lañuy gëm mom lañuy gis ndax ki bo xolé ciol gu bon gi mi solak ak li musique ak comportement bi mu am niruuma daal koo xam ne ku am éducation bu bax la fo dina ko pourtant ku yarul la ku silwi sala xeyna limu nekkul musulman motax tax mu man yenn yi mu man di sol yenn ciol ni ak yenn comportement yi su fekkoon musulman la xeyna dina am benen comportement bu bokul ak bi ndax yaangi ni yow mi sama dom di doomu jullit te gis nga li ngay sol loolu moom bu ci jugé kenn bàyyil noonu rek Adja lu wax papa ji sotti ci suuf noonu Adja daal di ànd ak papaam noonu nag la Fodé di préparé wu mariage boobu ngir takk ki nga xam ne mooy Véronique bis boobu mu waxtaaneek Adja doomam ji guddi googu mu tëdd nelaw ca Ndakaaru daldi di gént lu gëjoon a am nag lu gëjoon a am trop ndax diiraa mu ñëwee Ndakaaru musul gént musul gis dara mi ñu ko doon seetloo sax lu ci bari day jékki-jékki xelmente mel ni dañ ko wax dara rek mu jàpp loolu daal di koy wax loolu tombe waaye gént carrément gaayam yooyu ko daan dikkal gént koon waaye jour boobu gisul looy mi gisul kenn Maymuna la gis may Maymuna mi nga xam ne moom la gisoon ca Mali mu yàgg lool moom la gisaat waye daf ko gis mu tok ci buntu fo de wacc ba fekk ko fim tok ci chaise bi de jël benen chaise teg ko dend ak mom nuyu may mëna fay ko may mun nako xana da nga ñew ngir waxtaan ak man fo de nako ah, waaw ndax dama la gëj gis lool depuis Mali la la gëjoon gis yoon yi ma lay gisaat yépp nekkul Mali Sénégal la takaw lak la moy yoon yi ma doon mujjé dikkal tu koku sax woruma ne ndax yaw la ndax di ngeen niro waaye yow moomu yow yaay ki ma gisoon Mali mu ne ko ah, man la rek benn la rek waaye dafa am lu ma lay wax bu fàttali bul fàtte mukk la ma la waxoon ndénkaane ba ma la dénkoon conseil yi ma la joxoon ca Mali lépp gis nga ko waxoon naa ne la buy dugg ci soxna bu ci dugg ndax ab taar dugg ci ndax jikko yu rafet ndax taar kat yàggul ab diir la te day jeex te loolu dafa mel nii déggoo ko woon noonu foo dina ko yi dégg naa ko de dégg naa ko mu ne ko waaw léegi lu tax ndaw si nga bëgg a takk xooloo jikkoom foo dina ko laa kii xool naa jikkoom de kii si kër gi la nekk silwise lool di dox nank di wax nànk duggul lu yoonam nekkul ku jàpp ñaamuram la noonu foo ko ah loolu rek nga xam ci jikko may Maymuna boog ne ko Fodé loolu nga xam ci jikko Fodé na ko waaw mu ne ko kon baax na léegi su dee dëgg nga ngir takk ko ah dox ci ay jéego balaa moo yàgg ndax nag soo toggaatee lu yàgg toggaatee lu yàgg te takkoo ko dana wees la tax muy wees nag doo ko xam waaye daal profitool kon nga takk ko comme yi doy na la te nee nga jikkoom doy na la kon baax na waaye daal jigéen moom bu la ci ab taar rek dugal na la ci jukko ju baxit duggal dugal noonu nako baxna deg na wana li nga wax fóode bima yewo nak mu jaaxle di am ñaari xel ci ndaw soso waye xel mi yep yedd ko ne ah soxna si dal li nga gis ci mom rek nga mëna japp ku bax la ndax mbeugelam ëpp nako doole ba nonu nak la dal di jëlee décision yonne ngir ñu may ko soxna si mu nek soxnam bis bobu nga xamé ne ci la bëggona waxtaan ak frère boobu ngir frère bi waxal ko ci xalaatam bis boobu mu wooyee frère am yàlla def jotu ko mu jot doomam El mu laaj ko ana sa papa mu ne ko sama papa de moo jëkki-jëkki daal daal di xëm xaw dafa crise xaw dafa xëm ñu yóbbu ko hôpital Fodé ne looy wax nii mu ne ko waaw Fodé nag tiitaange gu mu tiit ak cheikh moomu di magam gi fi mu toll ci moom mu gaawantu daal di taal otoom ànd ak chauffeur am jubali fi nga xam ne mooy Kaolack waaye ndeysaan ba muy agsi ci kër gi teg rek daal di gis yuuxu yi mu mel ni tulli ak Mali fu ne nit di fa jógee di yuuxu ñu ne boroom kër gi Cheikh moo faatu mu nga hôpital Fodé téléphone am doon mel ni luy bëgg xar ku ne di ko woo Fodé nag commencé nag di yuuxu di jooy nit ñi di ko téye ndax xalaat na ne lii lu métti la xoolal kii soxnaam bi fi jógee bi fi jógee ak léegi yàggul bi mu gaañoo ak léegi yàggul ñu koy jooy noppeeguñu moom Cheikh daal di ci topp Cheikh daal dafa mel ni ku daal di topp soxnaam boobu rek ndeysaan mel ni soxna si dafa dem yëbbaale ko mu nekkoon lu daw yaram lool nag coo yàlla lu metti daal yàgg na ci àdduna fii la ñuy yemale épisode bi ñu jox leen dig daje épisode 10 bi ci lu yàggatul dara incha allah jërë ngeen jëf. abonnez-vous sur Scène Production pour ne pas manquer des histoires et films très intéressants. Scène Production Islam Sakanam.